saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat revanche ba combat clarification ba combat face ak géejawaay ba ñu finalisé démb Balla Gaye 2 Gris Bordeaux troisième tigre de face bi le combat finalisé nañ ko démb Père Gaston ma doon dox bi le combat di ci wax ñu jàppoon ne ay naxee mbaay la matérialisé na ko niki démb Gris Bordeaux ki mbokkam jot nañu avance Balla Gaye 2 ki mbokkam jot nañu avance démb ci arxames ji la sunu làmb xam le ne Père Gaston dana def ab jot nañ seen avance la waral ñu reporté super ndaje ba mooy la waxoon ne danaa organiser petite cérémonie ngeen bindal ma si ndaje journaliste yépp di ma woo ñépp bëgg a teewe ca mbir ma te bëggeewu ma ko woon noonu loolee moo waral ma fomm ko joxe avance rek mbir ma jeex waaye li ma bëggoon mooy convoqué Gris Bordeaux convoqué Balla Gaye 2 convoqué Eumeu Sène convoqué Bombardier nekku fi Max Mbergane teewal ko bu ko defee ñu daje ma jox leen avance waaye ni ngeen ko bindeeg ni ma ko bëggee du benn te bu ma toppoon bés rekk ci des revanche bu taxaw moo tax sunu làmb xëy ne Gris face à une revanche de tous les dangers ci atum 2018 la ko Balla Gaye 2 daan mu ne leerut ñu teg ci ñaari mu fas yéene jël si revanche am wone boppam bi le nag ci diggante Gris ak Balla Gaye 2 boo mooy tuut dana wexaat taxawal bi nu taxawal bi les combats journal ba la mu jàpp mooy yàq na lu bari yàq na lu bari ci côté tafaatin yàq lu bari ci côté Boy Niang tafaatin mu ngi doon espérer bëreeg Gris Bordeaux wala bëreeg Balla Gaye 2 Boy Niang mu ngi doon espérer bëreeg Balla ba ñu taxawalee bi les combats nag ñaari mbër yépp la nu yaakaaroon mujjul am xel yi dafa mujjee wëlbati ko ci diggante tafaatin ak Boy Niang 2 ngir combat bu neex tafaatin war ta bañ Boy Niang 2 ndax Ama Baldé mi ko daan classe Boy Niang la Boy Niang 2 bu ndax jéem naa dugg Lac de Guiers freiné ko bi les taxawal lu neex la nar a neex kay mooy combat a dox ci diggante double moteur ak stratégie yaa calcul yëpp commencé na ci côté double moteur moom bëru rëbës bi la mu xam le mooy xam naa Quench bu baax xam naa li mu mëne xam naa li muy bëre Quench mii ma gis nii yor lu bëri lu ko mën a daan Quench bu nu jàkkaarloo ba arbitre génn suñu diggante dana xam ne lépp dëgg la bu dee ñoom waa Lansar nag écurie ba commencé naa neex combat yaa ngay jalaa ñëw ku nekk di signé Siteu moom signé na bu yàgg bu yàgg Quench ak doog am ci war a a taseel est-ce que rëg-rëg Sa combat bu neex la ndax rëg-rëg guy gi bu ñu bëree dana neex ndax Yékini Junior dana nangoo jël rëg-rëg Garga Mbossé ak rëg-rëg est-ce que lii combat la ñeenti adversaire yooyee la journal ba xëy li rëg-rëg teg ko ci taabal ji di xaar ñu xool ndax jaadu na wala jaaduwut jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fës ci etu yéene gaa bi ñu leen jox di daje ba lëg incha allah